fa yaa xayu yaa qayuumu yallaahu rabbana ilayka tawassalna bi xayril bariyati yaa xayu yaa qayuumu yallaahu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin el Fatihil Fatih. الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وكشف الغمة wajahada fi fi llahi xaqa jihaadi ila an ataahu lyaqin sallallahu sallallahuma alayhi wa ala kulli man ixtafa atharahu ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki Sénégal mbokki jullit yi kéemtalaayal suñu xel ak xalaat ñu ngi yëkkati nuyoo jëme ko ci képp ku dëkkee réew mi rawatina kilifa yi di di leen ndokkeel ci at mu bees mi di leen massawu coono ndax jamono ji jamono coono la te ñoom ñi nekk ci boppu njaboot gi coono bi yëpp ñoo ko yanu ñuy nuyu nag xeet wi xeetu Seydina Muhammad mu di julli di kenn génnul nuyu peuple sénégalais euh, ñi nga xam ni ñoo fi nekk sax fi demuñu fenn teg ci ñi nga xam ni fi lañu bokk waaye dañu génn bitim réew euh, bu ñu ci jógee ñu teg ci njaal mu ñu yëkkati njaal moo xam ni Sénégal dëkku diine la te ñaari kilifa yu mag bokkoon ci ñi nga xam ni leer lañu woon ci réew mi njiit la ñu woon ci réew mi ndimmal la ñu woon ci réew mi kaaraange la woon ci réew mi suñu boroom def ci ñoom la ko soob kiñ ci jëkk jaale muy Serigne Abdoulaye Thiaw Laye doonoon nit ku baax ku jaambure woon ku taxawoon taxawaay bu rafet ci laayeen dundal fa lu bare ñépp fekkee ko daanaka lenn ci mbokkam daan nañ ko seede di wax ni ña fa toog di xalifa fi mu yóbbu yoon wa ñoom mënuñu ko fa woon yóbbu loolu mës naa ko dégg ci maam raan laay yal na yàlla yokk leeram mu wax ko seede ko ci moom ñu nit ñu topp ci dëggal ko rek ndax nitu jàmm la kenn mësul dégg ci moom lu la naqadi e, bu ñu ci jógee ñu jaale Seyid Abdourahim Seck ca Ceneba moom it yàllaa ko fi indi moo ko fi jële kenn mënu ci dara mënul woon bañ a ñëw waaye mënul woon bañ dem noonu la ko yàlla bëggee woon eh, Ceneba bokk ci ëttu Cheikh na Ahmed Tijani radiallahu taala anhu di ëtt bu yàgg bu am cosaan am taarix boo tuddee taarixu tariqa bi fii ci Sénégal fokk nga tudd cene ba doole ko ci maam Amari Ndaak ak fa mu jaar ba tariqa bi dugg ba sax fa saxal fa la mu fa saxal lañ ca sentaane woon ñu di ko taxaw di ko def ah su ko defee jaale njaboot ga wan leen ni ñaar ñii ñu tudd fa ñu jóge ak fii ñu toog di wax ñoo bokk lépp mm-hmm. dara doxul suñu diggante ndax euh, li gën a foor ci li ñu bokk moo di baatub laa ilaha illa allah sayidina muhammad rasulullah ñaar yooyu kooko ko bokkal yàlla nee na defaral sa diggante ak ñoom ndax islaahu daatil bayni fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha bu defee lii ñuy wax it dañu ciy def yàlla seede nag ni dëgg la ci ñun ñu ñaan yàlla ni ko waxe woon léegi rek ñi dem yal na leen yàlla naq ci géeru yu yërmandeem ba fa ñu nekk gënal leen fii ñu jóge te yàlla nañu xeeb lu ñu yóbbu amiin ndax lu baax lu yàlla nangu moom la nit di yóbbu ca yàlla di ko xeeb mm-hmm. ndax la nga ci jële ñi fi nekkoon ak ñoom it yàlla bu seen yaakaar tas bi jaay nabil mustafa bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi ah ko defee ñu ñëw ci ñi nga xam ni ñoo di kilifa yi nekk ci réew mi kilifa nag bare na waaye dafay bare xeet kilifa yi nekk ci réew mi te ñun bu ñu dee wax jiital leen bu ñu dee def jiital leen mooy kilifa diine yi ñoom lañu yàlla booleel ñi ci jiitu mooy ku fi nekk te sa askan di dellu ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ñu di la tudde sëtu yonent bi du di la tudde shérif ñu teg ci ki nga xam ni gannaaw Seydi Hadj moom mbirum Seydi Hadj ci loxoom la ko yàlla jaarale euh, yàlla nag moo xam la dox seen diggante dëgg-dëgg ba mu jaarale mbiram ci loxoom moo xamit mayu kooka na mu tollu moo xamit mayu Seydi Hajj Maalik na mu toll ñun daal rafetlu ak yaakaar lañ ci am muy Cheikh El Hadj Omarul Fouti radiallahu an eh, moom it njabootam tey Ceerno Bachiru Taal moo fa nekk di xalifaam nuyu Ceerno Madaani Muntaqa nuyu suñu mbokk mii nga xam ni ñoo moom a dëkk muy Thierno muy eh, Sidibé Kay Kunte di nuyu Thierno Ahmed Tidiane Ba ci Madina Gunaas amit nag ku nekk ci diggante bi di sang di ku baax mu di Thierno Mountakha Bachirou Mbacké nit ku baax la moom bëggoon naa wax ci moom lu bare waaye waxtu wi di ko laaj di nuyu sang ba ca Kaolack di xalifa man maay xalifa Mahi Niass di ko nuyu di ko gërëm di ko sant nit ku xam boppam nit ku jaar ci yoonu xam boromam ak di ko wut loolu la fa donne ndax kër maam Abdoulaye Niass ku fa demoon tey di jeexaat doo fa for lu dul yàlla ak Cheikh Ahmad Tijani di ko ziyaara moog njaboot ga yëpp imam Cheikh Tidiane Cissé di ziyaara itam Cheikh Ahmed Tidiane Niass ten law na Niassène ziyaare ko ndokkeel ko moom njaboot gu fa nekk ku mel na Seydi Arabi Ñas di ko nuyu di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla jàppale ci yan bi nga xam ni kenn tànn ko yàllaa ko tànnal boppam teg ko ci kawam nuyu sëñ Muniru Njigéen xalifa maam Ahmed Njigéen ca Thiès di ko ziyaara di ko ndokkeel ni ñu def ñëpp di nuyu sëriñ Daouda Mokhtar Laye di xalifa bii nga xam ni dafay soog a toog dafay soog a toog te door moo gën a jafe àggale lii mu sumb nag fas ko yéene àggale yàlla na ko ci yàlla jàppale di nuyu Ousseynou Seck Assane Seck xalifa Ceneba bii su ko toog moom itam li ñu wax ci sëñ Mokhtar Daouda moom la ñuy wax ci moom ñu teg Serigne Ousmane Ngom Alhaji Ousmane Ngom ca Paal di ko xam ni ñoo bokk jataay bii ndax li fi am solo maamam ak Seydi Hadj Malick ko bokk taxawal ko ba mu taxaw waaye yàlla def na teew na ndax bi ñëpp teewee sëriñ Bachir Ngom a ngi nii toog xam naa lim dafa mënul a ñàkk waaye bu ñu ne woon xeetu Seydina Muhammad rek ñëpp du ko sëriñ Abdoul Aziz Touré ngante tax na ñoo waroon a bokk jataay bii bu ñëwee du gan du jaambur lii fi am la fi am ci ñaari wàllam yëpp ñu nuyu imaamu ratib bu dakaar di Papa Samb di nit ku baax nit ku dal ku effacé wu ku delloo boppam gannaaw te bu ko matul woon Ndakaaru duñ ko jiital moom it fa mu toog ay maga fa toogoon ala jama Lamin Jéen ak ñeneen ak ñeneen kon ñun nuyu alaaji Papa Samb dugal ci nag ilimaan yëpp bàyyiwuñu benn képp kuy ilimaan rek dugal nañ la ci biir ndax lii ñuy wax amul discrimination ñëpp jaamu yàlla lañu ñépp ay bokk lañu innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum loolu lañu yàlla wax su ko defee ña ca topp di mbooloo yi nga xam ni dañ ko sos te sos ko ci turu diine muy aljamiyatul islamiya yëpp di dund fii ci Sénégal mën nañu wax ni lañu ñu ciy jëkk a wax mooy ibadur rahman dugal ci ñi ci des ñëpp teg président daayira yëpp Sénégal fu bare daayira la waaye daayira yi ñu mën a tudd ñu boot daayira yi ci des mooy daayiratul kiraam ak daayiratul ahmadiya ñu boot daayira yëpp ndax daayira bare na waaye daayira dëgg-dëgg sëñ Babacar Sy radiyallahu anhu moo ko jëkk a sos gannaaw baayam Seydi Hadj Malick ca jigéen jë jigéen jëkka maam ko ba mu ne may seen góoru mbootaay dindi ngur dem ba jox leen Seydi Seydi ñëw saxal loolu yaatal ko wax digle na mu war a doxe fàttewuñu ñu boole ci ki nga xam ne mënuñu ko ci génne monseigneur Benjamin Ndiaye ñu boole ko ci ñoo bokk Sénégal ñoo bokk askan wi xam naa dafa waroon sant si bañ a njaay waroon sant si bañ a sant njaay parce njaay moom boo ko mooy lu ñu gaaral lu yàgg te jarawul lu bare lu ñu ràcc rek teg ko nit ñi di ko romb te kenn jënd mooy njaay fa tabarakallahu ah, su ko nag ñu ñëw ci ñi nga xam ni ci jamono ñoom la yàlla jox genn wàllu jamono li dul diine te dend ak diine mu bokk ci li doxal àddina doxalul diggante nit ak yàlla waaye àddina lay doxal mu di république bi ñu nekk ki yàlla teg ci kanam mu di Macky Sall ak gouvernement am tegu fi boppam yàllaa ko fi teg yàlla ko fi teg ci coobareem ndax boo seetloo ni mu fi tooge ak ñi mu fi fekkoon ñu bëgg fi toog yàlla ñëw teggil ko ñooñu ñëpp ñëw du teg ko fi mu toog nga xam ne yëf yi dafa am boroom am doxalin am loi am règle li yàlla di def nag daf dul tàggoo du yëgle dafay dogal rek mu am innama amruhu ida arada cheyan an yaquula lahu kun fa yakun ñu ni bu yàlla di fabriqué mi ngi nekk baynal kaafi wan nuun Macky Sall jiite ko ñu di nuyu di ko jox liñ ko ameel ci respect réew mi nekk ci loxoom ñuy ñaan lii yàlla teg ci loxoom yàlla na ca yàlla tée eh, lu nekk mën nga jàng ba ñu ne sotti na mm. yàlla jubbanti la nga taxaw wala fi dañuy wax ni tuñum gëléem lang na waaye daanuwul waxuma politique nag damay wax kilifa gu yàlla tànnal boppam te tàgguwul kenn teg ko ci béréb respecté ko ngir yàlla ma ko fa teg parce que respecté ko mooy respecté jëfu yàlla ci kaw suuf te lu yàlla def rek war nañ ko fonk bu jëloon benn dof tey samp ko ni mooy mooy réew mi mënuñu lu dul topp ci gannaaw dof ba ku am sa ndox sang ko ku am sa mburu jox ko waaye ñu topp ci gannaawam ni yàllaa ko fi teg euh, ñun yàlla def na sutura xëy na àddina ku ciy dund jëf-jëfu àddina waaye xéeruñu ci politique waaye du tere nag politiquement ku fi yàlla teg rek cër ba ñun dañ ko respecté di la ñaanal nag ndax waruwaay la ñu ne ci kaw ci waruwaay la ñu nekk nga ame baar bi di dawal war nañ la ñaanal ni ko Cheikh El Hadj Abdou daan ñaane yàlla bu pën a toj yàlla bu baar de couplement dog yàlla bu oto chavire yàlla bu chauffeur juum yàlla bu kàmb am ci yoon wi yooyu yëpp ñu di koko ko ñaanal bëgg réew mi ñoŋ réew mi kenn moom ko ñëpp ko bokk mhm. waaye nag moom lañ ko teg ci loxoom mhm. mu mel ne yàlla yëg na ñëpp waaye moom la wóolu teg ko ci loxoom yàllaa kon mënuñu lu dul ni lii ko yàlla defal yàllaa xam lu tax mu def ko waaye yàlla nañ yàlla nañu jik ñun ñëpp teg ca ñi nga xam ni ñoo fi nekk na moom moom dafa am fu mu toll woon bëgg réew mi yàlla jox ko ko foofu mu toll woon am na ñu fa tollu bëgg réew mi xamaguñu leen moom nag mu ngi fi bëgg a yàgg ñooñu xamaguñu leen ñuy ñaan nag yàlla képp koo xam ni boo amee réew mi waa réew mi am noflaay jëriñu yàlla na ko yàlla teg ci sa loxo ñu di leen wax opposition waaye daal képp koo xam ni daa ñëw ëllëg ndax kenn saxu fi yàlla nguur cërëma te nguur gu sax dàkk cërëm mooy cërëm mu tax nag ñi ñuy wax nguur kenn ku ci ne yàllaay comp ci nguur ga mosal la boo demee nag booy bëgg a xàttar biku yàlla nangu la mu la joxoon xam ni nguur gu sax dund gu sax mën gu sax am gu dul jeex yàlla rek ko jagoo ñuy ñaan ñoo ñooñu tuddee seen bopp opposition ak ñi nga xam ni ñooy gouverner ak ñi nga xam ni euh, euh, muhaayid lañu ñoom société civile ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk yal na yàlla coppati ci sa xol dugal ci sa xolu moroom ba xalaat yi soppiku bëggante am rusante am worma am kersa am teralante am jàmm am ñu jariñoo ko yal nañ ko yàlla boole defal Euh, loolu moo di li xam ni moo fi am fii ñu toll moo waral coow li bare na fi jóg ak naa toog ñi naan na fi jóg nag bare nañu ñi naan naa toog nag kenn ku nekk sa bopp la tax di wax toogagoo waaye boo toogee yal na la yàlla jàppale ba nga def fi lu nit ñi mën a jëriñoo bi ci des nag mooy réew mi réew mi ñi nga xam ni ñooy gouverner di jiite bala bu ñu dee tëral dara bala ñu koy mën a doxal fokk ñu jaari assemblée assemblée waxtaan werante génn seeni xalaat tëral su ko validé loola war na am warul am waaye bu fekkee dañuy wax dëgg rek assemblée euh, loola amu fa la am mooy xuloo xeexoo dóorante kurpeñ saagaante waxante lu bon ki nga faral bu waxee lu dul dëgg nga dëggalal ko ki nga contre bu waxee dëgg nga weddi ko loolu moo di loo xam ni moo fi nekk du xas du lu ñu sos ñoo ko fi def ñëpp teg ci seen bët ñëpp ci tegaloo seen bët bu yàggul rek lu mat ñaari yoon am na fi te jógoogu fi la assemblée waroon a jëriñ mooy ñañu fa teg ñuy ay député kenn ku ne région ba nga représenté soo ñëwee assemblée neen ah taliba de toj na nawet bi dog na yoon wa forage ba yàqu na làmp tàkk gu fa nangam nangam wax a wax a wax pour lu jëriñ foofa ñu seet nan ca ña ko ña ko war a jagoo ministre de tutelle ba ko war a amee mu seet nan la koy jagale loolu moo fa waroon am ña mënula ña bëgg a wax ami soxla te mënuñoo agsi yéen ña ñu tànn ni demal leen ñu bu ngeen ñëwee war leen def lu wuute ak lañ leen santoon loolu moo di seen warugar ah, nit nag doo ko chargé de mission mu dox mu bàyyi mission ba dox soxla boppam dem nañu ba nga xam ni ci wàllu àddina nii rek wàllu société repère amatul crédibilité amatul confiance amatul kenn yaakaaratul kenn kenn ku ci nekk fa mu gën a ñaawee fa ngay tibbe saaga nañu politiciens yi saaga nañu sëriñ si saaga nañu ku deful dara saaga yiwul du defar kon war nañu mën a jéem a jubal war nañu mën a jéem a juboo ndax transhumance su mënee am jubo mën na am transhumance moo di juboo ma ak yow démb maa nga fale yaa nga fale jotewuñ dara tey ma xëy si rek jox la loxo nga jox ma loxo ñu daal di ànd lëngoo ñu daal di ñu portele ku mën transhumance nag ngir sa bakkan ngir àddina war ko mën a def ngir yàlla nañ leen transhumé ci yi nga xam ni yàlla gërëmu ko ñu bàyyi ko fa te transhumé wuti la yàlla gërëm ñaaw-ñaaw yi bare na bare na trop wuute gi doo xam fu mu féete te it kenn ku ci nekk li nga bëgg soo ca jotee coow li ni kuy boo ca jotul coow li ni kuy dina nit benn mu am wala mu ñàkk loolu mooy réglu àddina fokk nga am wala mu ñàkk su ko defee loolu di fi bëgg yàgg loolu di fi bëgg a yàgg trop ñu dem nag ba mu yokk yées na mu meloon mu gën ko yées léegi yàlla nag mën na muñal ay jaam waaye du leen seetaan lu leen neex def léegi yi bon ci jamono bare na yi yàlla buggul réew mii dañu ni réewum jullit la ñuy puukare woo pour cent musulman quatre vingt pour cent yooyu boo ci dindi woon ñi xam waman naqasa wa zaada ñu tuuti la doon jàng nañu tubaab nekk nañu ay nekk nañu xawma lan ak lan ñu ngi toppatoo ñu ngi dugg ñu ngi génn ñu lee ngi bitim réew international ñu lee ngi ci réew mi di borom diplôme xale yi tuuti léegi kenn nangootul wax wolof ñëpp tubaab la ñuy làkk loolu moo di xeeb sa bopp te sa bopp nag du yow yàlla yàlla la bind nii nii nga mel kon da nga war a nangu ni la yàlla def boo ñëwee ci jigéen ñi li yàlla bañ ñoom dafa mel ne dañu wax yàlla dama ni dafa mel na xasuma leen nag waaye loo am ñépp teg ci seen bët maanaa yow yàlla def la bind sa karaw gàtt nga wuti beneen karaw ni yàlla yow ba nga may defal karaw xëy na pénurie karaw dafa amoon bu mënul loo ma defal karaw gu gudd nga ñëw defal ma lii ba noppi wëlbatiku naan euh, euh, naan rëbb ku yokk ku lonkal waaw waaw wal mustawsira su ko defee nag yàlla ni moom ak yonentam ak ki malaakaam képp ku yokk yàlla rëbb na la rëbb na ak ñooñu yàlla def na itam euh, karaw yi fu mu jóge ñii ñu dee lañu dee foo xam ni du ñu maye dara du ñu bàyyi dara ku dee rek boo sa karaw guddee ñu wat ko jaay ko te itam feebar dafa bari feebar dafa bare te karaw sore ci eh, deru nit nekk ci biiram boo ko watee rek mu génnaat kon mu nga ci biir yàlla rek a xam fu mu nekk waaye boo tojoon bopp bi karaw du génn loolu jigéen ñaa ngi koy def mu bokk ci yàlla buggul jigéen ñi lii def boppu neen ak bopp neen conséquences yi ci am fii góor ñi sax dañ leen daan tere bopp neen mm-hmm. surtout ah loolu jigéen ñaa koy def benn musiba bu mag am nag mooy réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi bi mu ñëwee jigéen ñi di photo wu di joxe adresse yàlla bind la ah ci gën jaarafeti bind gën jaa rafeti bind yàlla bind la ci nga defar nga transformer tout su ëllëgee mu jural la jàngoro ju kenn mënu la faj loolu jigéen ñaa ngi koy def réseaux sociaux yi lu nekk ngi ciy xew commentaires yi saaga yaa ngi ci ñu ngi apprécier lii di xas lii di saaga lale kenn xamatul foo jëm góor ñi ñu nga ci la yàlla bañ lu fi yàgg loo xam ni juróon na fi coow bu yàggul mësu fi jóg nag yàgg na fi li naqadi yàlla nag ku yebu naqarlu ko ku ko naqarluwul ca nga bokk complice nga te li naqadi yàlla kenn mënu ko wutal am argument boo ko défendre amul amul amul amul ci àddina li yàlla ni bugguma lii nga indi argument ni lii baax amul mu mel na état bi ci seen bopp ñoo war a contrôler état bi li fi warul am mënu fi ñàkk bañ a am foog mu am fi waaye kenn du ko manifester bi ci des mooy sàngara si xale yi di naan di ko jënd ci école yi mbuus cent franc di ko naan loolu war nañ ci wax loolu nag mbirum état la beneen bi ci des moo di boîte de nuit yi bare na fi mbon gi bare na fi liberté bi bare na laisser-aller bi bare na jigéen ñi simmeeku seen yaramu neen yi nekk ci biti façon bu ñu di ko def fecc mi bare way yi bare doo xam doo xam looy def télévision yi bare télévision bu nekk am nga droit wu lu la neex génne loolu kenn mënu ci dara waaye nag boo demee ba di mag di responsable wara a mën a am télévision war nga mën ni télévision bi day dinaa seet luy jëriñ réew mi ma def ko ci waaye duma ci génne lu bon duma ci génne lu bon xëy na télévision yombul jafe na parce que foog nga am sponsor foog nga am ku la jàppale nga soog a mën a dem waaye ni mën naa ko di def yu rëy rëy rëy am nga alal télévision bi lu ne di ci jaar lu waay bëgg a wax wax ko te la muy wax dara du ci dëgg lu waay bëgg a wax wax ko te dara rafetu ca mu mujj nekk moyen boo xam ni moom la ñu communiquer loo bëgg a wax nit ci nga koy jaar wax ko loo bëgg a gaaral nit ci nga koy jaar gaaral ko parce léegi jëlal benn émission diine ki koy présenté moom rek ay amee kàddu animateur yi duñ ci am kàddu ñu di leen jël nag boroom xam-xam yooyu di leen jël di leen taaj di leen wax loo wax yoo xam ni yàlla àndu ci yonent àndu ca te xam nga am na yoo xam ne soo ko dee wax walla nga di ko def jotewoo ko ñi koy dégg dégg rek lañ ci am ki ngay dajal ëllëg moom nga amal affaire su ko defee ñaaw ñaaw yooyu yëpp ñu war ko bàyyi lu ñaaw nag su am nit ku nekk am nga war nga man ni lii ñaaw na bokkuma ci moogën du man kenn lii ñaaw na ñaaw na te lu ñaaw nag yonent bi sallallahu dafa am lu mu ci wax ku gis lu bon lu ne fexeel ba mu dañ soo ko mënul jéebaane ko ñëpp wax ca soo ko mënul ne ñëpp di ñaan ba yàlla jëlee ko fa xew-xew yi fii am ñuy manifester di di marche di def leneen kenn ku ci nekk sa compte nga ca moom ngay régler sa compte ba nga cay régler kii dafay régler compte politique am kii régler compte mbañeelam ak eenam kii régler compte économique am dem ci butik ba toj ko jël fa la mu fa jël yóbbu këram trois mois doo jëndi dara lépp nga am nga ko moo tax keroog bi manifestation yi amee fii kii ñuy wax ni dafa téléphoné ci waan benn xaritam xam mbokkam ni ko ni ko dégg naa Auchan bi ñu ngi koy toj buñ ko tojee nag mu ci jëlal meew waay dégg naa ñu ngi koy toj jëlal ma meew xam nga loolu bokkul ci manifestation bokkul ci mécontentement politique bokkul ci leneen loolu faj sa aajo la Eh, seetaan bi xaw bare waaye ñu xam ni Sénégal bokk na ci dëkk yi yàlla téyel boppam lii fi nekk di Covid la jël nit ñi kenn ku ne di ko jàmbat te doo ci def li yàlla bëgg li ci yàlla bëgg moo di ah képp ku mu fekkoon ci lu bon nga bàyyi ko dellu ca sa borom tuub jéggalu ko yàlla tëjul buntam te buur bu labir la nga tuub jéggalu ko man de wax dëgg yàlla ci lu bon laa nekkoon waaye daal daal damay dee ëllëg te xamul lu may fekki naa teel a bàyyi li ma nekk rek yàlla daal la ci fekk jàppale la Covid bi fi nekk Covid bi jeexagul Covid bi jeexagul Covid bi du jàngoro covid bii yàlla jéppi nit ñi wàcc balaa ci seen kaw wàcce balaa ci seen kaw ñu di ko doyadal di ko doyadal di ko doyadal ba ci fan yi ñëpp daw di wuti ñakk te dañ ko doon kontar balaa la su boobaa nag ñun ñi ñu tëjoon jàkk yi waaye santuñu kenn mu tëj am na nag ñoo xam ni seen pas-pas ci kër Seydi Hadji Malick fii la ñuy doxal rek la ñu ànd ak ñun doxal ko tëj seen jàkka ni bu tiwaawoon tijjiwul du ñu tijji ñun li ñu taxoon a tëj jógu fi mi ngi fi ba léegi moo tax Ahmed Lamine Sall bu Serigne Abbas Sall radiyallahu anhu ba ñu jëkkee wax tijji booba kaa yi barewul kaa yi barewul ñu ni nañu tëju kaa yi bare ñu nii nañu tijji dafa ni ku gouvernement waxoon nga tëj nga tëj bu la nee tijjil tijjil ñi nga xam ni ba ñuy tëj gouvernement taxul ñu tëj mën nañu bañ a tijji ba gisul leen doy ñu tijji loola doyoon na tontu senegaal yépp wax boobu mu wax doyoon na tontu pour tout le monde parce que répétition mooy am répétition mooy am répétition boobu bu mbooloo dajaloo ñuy wax kenn wax dëgg na ñëpp incliné wu rek ci dëgg ga waaye moo gën euh, euh, moo gën euh, man dëggu kii du sama dëgg dëggu kale du sama dëgg ca ñaare li koy euh, waral bokkuñu parti wala bokkuñu sëriñ. mu mel na alquran wax na ñu ni lii fi nekk lu ngeen mën a def du fi jóg laysa laha min dunillahi kaashifa laysa laha min dunillahi kaashifa dafay am faw ba mu neex yàlla mu jëlee ko fi su ko defee euh, li ñuy wax euh, li ñu digaloon moo di diine dafa am lu mu santaane ci li ci gën a gàtt moo di fu lii am bu fa dem fu mu am fekk la fa bu fa jógee ñu bare deneen ci saxaaba yi te jëfandikoo sunna yonent bee tax ak waxam dëggal waxam moo tax ñu dee ca toujours mois wax ni Sidna Omar ibn Khattab day ba ñu ba ko waaje ne euh, da ngay daw dogalu yàlla mu ne ko waaw damay daw dogalu yàlla làqu ci dogalu yàlla léegi docteur yi li ñu am pour protéger population bi mën mënuñu leen faj waaye mën nañ leen aar ñekk ay anticorps lay créé anticorps yooyu moo lañ taxa a mën a résister lii fi nekk ba bu la dee dalit du la dal dal bu fort waaye du tere nag mu dal la bu la waree dal dan la dal waaye bu la dee dalit du la gaaw semal doo gaaw lot kon man de li di sama xalaat moo di bu ñu nee ñekk na ñekk ñekku ji mm-hmm. parce que mbirum yàlla man li ma gis fii ci mag ñi fi nekkoon ku ci feebar di naan aspirine mm-hmm. boobu dañ koy xóoyal mm-hmm. di ko naan wala ñuy naan kinin kinin sax lañ jëkkoon wax indi niwaa kinin indi chloroquine indi deme noon noonu waaw corifidri nag yu kenn xamul mm-hmm. waaye bala ci daan naan benn doom dinañ ko téye ni tekk ni tekk jooju lan la moo di yàlla maa ngi sabablu kii nag mënul ci man dara duma faj yow yaa may faj mm-hmm. daal di naan doom boobu ci sabablu mm-hmm. léegi nag li ñuy def dañ ci génne yàlla li ñuy def lépp dañ ci génne yàlla léegi li ci des yàlla mënul lu dul fàkkal la yaay seet noo cey daanoo nag yaay seet noo cey daanoo fi mu la war a fàkkal fàkkal na la nañu dem ñàkku ji te bàyyi weddi bi fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun li nga xam ni daf la dal te xamuloo noo ciy def kala ci tane ci xam-xam demal jox ko sa bopp wala nga laaj ko docteur yee xam ñoo amee docteur ñoo amee euh, ñàkk yi na nit ñi ñàkku ji te toog xaar yàlla waxal ni yàlla maa ngoog fu ma nekk xam nga ko mm-hmm. li ma bëgg xam nga ko li ma ñàkk xam nga ko bu la neexee loo ma bëgg a defal xam nga foo may fekk yàlla fekk la ko neex betti xéewal ñoo yàlla betti xéewal yàlla betti xéewal te ñu wàññi wax ju ñaaw ci télévision yi plateau yi wàññi weddente bi bu ñu ko mënulee bàyyi nañ ko nañ ko wàññi docteur yi nga xam ni ñoo nekk malade yi di sonn guddeeg bëccëg nit ñi di leen daw ñoom ñu di leen ñëw pour faj leen ñuy ñaan yàlla yal na leen yàlla musal te ku ñu tiim yal na nga wér amiin ñi ci dee yàlla na leen yàlla jéggal yërëm leen ñi ci dund te tëdd fa ñu tëdd mënuñu jóg yal na leen yàlla yëkkati ak jàmm kenn bañ ca dee ñi tëddul yàlla bu kenn tëdd docteur yi nag seen coono yàlla mu mu neen yàlla nañ ci sonn sonn sonn ba xëy suba gis résultat bu positif muy seen liggéey yàlla fay leen ci te dañuy wax ni un bienfait mhm. n'est jamais perdu lu ñu def ci lu baax yàlla nga ko denc bu ma ñaamal misqaala zarratin xayran yarahu aw charran yarahu li ci des moo di delloo sa bopp ci yàlla boo mënulee ñaan ñaan gu ñu bind nga toog ci sa làmmiñ yàlla li waral lii de maa ko def te yëguma ko ñaari àq dalma ci ma def la la naqadi def musiba ju ma wale jaam yépp ba ñu loru ci mat la ñaan nga jéggal may ñaar yëpp keneen wéet ni maa def lii maa tax mu am keneen ni maa tax mu am keneen ni mu am léegi ñu àgg ca ka def la neexul yàlla ba lii am mm-hmm. te lii daawul amee ni ci benn dëkk la daan amee ñu di ko coow Ebola bërki démb fi jóge waaye addina yëpp mu wër ko ñëpp lot kenn mënu ci dara yàlla leen xam ngeen ni maa mën man mii maa mën ku koy def defle fa jële fi lii kenn mënu ko waaye bu ñu jubalee ñaan saraxe kenn ku ne xam nga ko tane nga dindi ci la nga am jox ko waaye dawal sa oto bu rafet sol sa mbaseñ ñëw sa daamina takk sa lunette takk montar romb nit koo war a lu nekk nga di ko seetaan moo tax sédagement yi wax am am bu ne nattu la ñàkk bu nekk nattu la ki am yàllaa ngi seet na muy séddalee ndax dana séddale wala déet euh, ki ñàkk yàlla koy seet ndax dana yaakaar keneen ku dul moom wala déet kenn ku ci ne ci nattu ko toll boo yaakaaree keneen ku dul yàlla wa ida saalaka ibaadi anni dafa xamul inni qaribul mujibu da ujibu daawata da ida daani ku yebbu muñ kuy dund ku ne daa am kuy dund ku nekk daa am kuy dund ku nekk wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala llahi risquha dañuy wax ne yàlla ba mu commencé maye digle di maye booba ñaan xewul waaye terewul la ma waxoon ma ngi koy def mu des nag euh, yooyu fi nekk yëpp sëriñ si ci seen bopp ni yàlla lañ fi toogal sëriñ sëpp laa wax ni yàlla lañ fi toogal ku fi toogal yàlla bu yàlla ne xëy leen tool ñëpp war a xëy tool bu yàlla dee bay toolam ñëpp war ci xëy waaye kenn xëyul lu ñu def moo di kenn ku ne yaa ngi toog di jàmbat di coow naan nañu ñaan te boo dee doo xam sax looy wax yàlla nag kattanam ak fulam àgg na ci wa in yamsaska llaahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa waaye nag soo demee ba soppi ku mel ni yàlla bëgg way yurit ka bi xayrin wala radda li fadli waaye sëriñ si war nañu wax ci réew mi wax leen ma yéen ñii fi toog ku ci fàttaliku benn bés boo xam ne bii sëriñ si dañu daje dañu daje di ziarante di nuyonte wala ñuy waxtaan ak seen njaboot njaboot gi njabootu diine la njabootu lislaam la njabootu yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu dajaloo ñoom waxtaan bëgg a waxtaan ak mbooloo mi bu ñu ko defoon daañu mën a waxtaan ak gouvernement waxtaan ak mbooloo kon ay du fi bare waaye defuñu ko defuñu ko bu ma kenn ni nii waa yow nag ndax def nga ko man bokk ma ci sëriñ si man ci taalibe yi laa bokk man aligné naa bu yàgg man ci taalibe yi laa bokk taalibe Seydi Hadj Malick laa taalibe Seydi Hadj Malick génn di yolos yolos yi ab sëriñ dafay am ñetti taalibe topp ko ku mu taseel nuyu nga tàllal mu ñaanal la nga làmb as jëf jox ko mu def ci poosam waaye bala koy denc yër ko nag bu xam ñaata la <laughs> loolu mooy sëriñ ñun nag ay taalibe lañ bu tooyee ñu paccax paccax bu wooyee ñu def ndànk loolu rek moo fi nekk def naa ni mën nañ yem foofu su maa rafet xalaat su dëngee nag yéen ñi ma seetaan may wax ngeen noppi yéen a ñaaw xalaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ya xayu ya qayumu ya allahu rabbana ilayka tawassalna bi xayril bariyati yaa hayyu yaa qayyuum ya Allahu rabbana